kër gi lu ne gis naa ko fi waaye lu tey lii. Mm-hmm. ak lu ma bett nii. Mm-hmm. musuma dal ci kër gi. déedéet non man man man damaa jaaxle damaa tiit. Mm-hmm. man lu leen neex nañ ma wax lu leen neex nañ ma jiiñ lu leen neex nañ ma ko yenn waaye kii dafa paase jabar ci kër gi ndey la ak ndey ni mu mel ci doom li mu daj ci doom nga tiim ko di ko wax lu ne astur yekk na kii lu ne. xas ko saaga ko ba ko yow sax sa ay gaaf moo rey bu ji wax ju rëy man eh, eh, eh, caam mii ko wax yëgu ma ko uh-huh. man kër gaa ngi ma daal caam mii ma ko wax ah ko danga ko waroon a duma gërëm da ah danga waroon a duma dara la ci fekk ah mais mais man man damaa waaru lii daal man mooy mooy mooy man man sama man na gis nga mm-hmm. lii duma ko dundaale ci kër ak su dinay wane ni kii du morom dina ñëw jégglu ko waaw. Euh, ba waaw yaa maîtriser wul sa kër. waaw su nga nit su demee ba yor ay soxna ci biir kër mënoo leen maîtriser parce que li tax mënoo leen man xam naa ko. voilà yow liggéeyuloo goroo yettoo defoo dara soo xëyee si biir kër gi nga toog say jabar sax ñoo jël xaalis bokkal la ku la ci bokk rek nga ne kooku la te yow am nga sañ-sañu. nit bokkal la sax nga bàyyi ayam dem ci ayu keneen ku la njooñal ganaar guddi ba nga feccal kooku parce que noonu nga yore say jabar yow yaa réglé yow yaa yow lu fi am ci biir kër gi yow la man du ma dóor kenn gis nga man man du ma dóor kenn man awma pour dóor sa jabar yow du ma ko def sur le feu jamais dóor jigéen comme que yow mënoo maîtriser sa kër mënoo régler sa kër nii doom lay mujjee hmm. donc jarul ngay dajale nit ñi di wax souvent aussi nga ne diw defaat na keneen lee mm-hmm. amoo fulla sa bopp wutil fulla ba amoo benn fulla euh, kii la vrai polygame mooy kii ndax yow da nga jël yàlla ak yonente bi teg leen boor bu lee kan yow li nga loolu am yow sa sëy bi nga nekk ak sa jabar yi sëy intérêt rek la yow comme li kii wax rek loolu ngay dund intérêt intérêt intérêt intérêt intérêt ba sa kër gaa ngi toj ba sa kër gi toj gi nga toj lii kii li wax dëgg la yow soo demee tey ba sa jabar yi ku ne di liggéey sa moroom nëbbatum ko nga xam ni kër gaa ngi tasaaroo sëriñ tariyaax yi jaabal ci kër gi mel ne ku ne ci làmb ci ay say kepp ay jigéen yu sa doomu ci biir kër yaa ñàkk présence il faut nga am sa biir kër xam na ngay téye sa téye sa jabar waaye téye jabar boo xamante ni yow da mel ni rek ku yor ay joueur football bu kii sonnee nga indiqué remplaçant kii dugg yooyu baaxul kilifa nga boo amoon noo fi mel kii euh, euh, euh, kii ñeme koo fekk di ko wax mu koy wax ndax di nga ci yoon waaye bu dee intérêt ngay dund kay yow yow yow yow yow luyee ay ay yoolu loolu loolu baaxul ku la jox xaalis rek nga nga luyee sa ay bi dem jox keneen loolu bu yàggee sa jabar dañuy yabante te lii ñu def nii boo ci jógulee beneen mbir lañu dee dina ah. fi jamante ay paakate duñu xam lu xew waaw jor nga may xool suñu waxee nga wàññi sa genn wàllu bët yi di xool bëtu dof nit njaay nga wér nga regleel sa kër gi ngay tax xam te ko mel ne ku naan lemu fajar ba regleel par regleel regleel sa kër gi bis buñ fi raayantee billaahi ci yàlla responsable de de de de sa tier yow ah nii la ñuy téye ay jabar polygame yow buñ koy wax yow yow taxoo sax ju koy wax yow da nga war a da nga war a démissionner de tes fonctions de sëy yow li kenn xamul lan la. te fii nii pare nga. pare naa kay. dama lay écho comme ni ñaan tux cigarette ni ñuy wax dama lay écho ma ñëw yow. man responsable téye sa yow vas-y waaw ah, yow yow du ma xamee dama lay aj sànni la waaw ah, dama lay aj yow ah. yow yow ragal sa jabar moo tax sa sa kër gi toujours fii yow benn ñemewoo lennam yaa ngi dégg ñemewoo sax nuyu jigéen moo tax doo jóg sama kër xam nga li ma la doo jóg sama kër yow may wax nga naan ma teewoo sa kër responsable kër xam nga li ma la damaa bëgg ngeen régler man bàyyi maak sama kër yow la na naxar man xam naa lépp sa góom la ko wokk xam naa ko yaa ngi dégg li ma la man yow war wax kenn ci jabar téye kër pour ndax xamoo ci dara. Mm. yow loo xam ci téye kër ah sa mariage une semaine lënd lañ ko takk lënd bi ci topp mu taas kooku xam na nu ñuy téye kër beneen bi dañ ko takk trois jours ana mu dem na nga naan ma responsable téye sa kër kii bi yow koy yedd ci téye kër ah naan ma goro yettoo noo tudd demoo euh, mairie def jugement ah noo tudd sa tur dëgg bu ñu la santalee sama papa euh, euh, euh, Abdou Thiam tamit ba sant waaye yaa ca jokk Thiam lan en ah, va. ana ana looy wax xam nga li ma la di kon yéen da ngeen a war a régler man lu ma sama kër xam nga li ma man dama leen woowoon pour ñu wax asu mu ñëw jégalu kii waaw dama woon pour ngeen woo asu mu ñëw jégalu kii waaye yéen amu leen lu ngeen may conseillé seen bàyyil ma woo kii mu jégalu la nga jégal ko. ndax xam naa doom ni mu mel ci ndey waaw yow ku la santul waru la xarit àdduna ñu gudd tànk ba ma séqate astu lenn ci kaw suuf jullit fa su ma ko yéene ci kaw suuf naa doon yëfër euh, naa doon ate euh. naa doon kaafirun séquma kook moom ndax li ma astu wax du fekkoon ma sotti ma ndox mu tàng maa nga jam ma paax sax ma ko gën a daf ma jam ci sama biir xol sama doom ji ak ni mu meloon ci man nekk sama ah, astu dafa laal sama fibre sensible la astu dootuma sëkk moom àddina sël yow yonente bi laal nan fibre sensible am te dafa bàyyi mu jàll te moo la gën bu fekkoon ne ku nu def lu ñaaw nga fay lu ñaaw kon àdduna fii nu agsi du fi agsi jullit nga yaa ngi julli yaa ngi woor yaa ngi fu la fekk yaa ngi yor kurus waa boo toogee nga ne du ma baale kon lan nga dootoo julli julli dafay baale hmm. li la wax li wax nañ ko juróomi yoon yoon ki la gën te dafa xool nit day baale kii du baal kenn xoolal maawa bi kii dafa ne si point de non retour yow mu dellu gannaaw noo jubale yow naa yow ci loolu kii tey su ko baaloon suba asu defaat leneen asu romb kooku ñu laayam boobu xoolal mu ne asoon na ci dëkk kii su duggoon tey jii laaw su duggoon tey nekk asu asu expliqué ko mu ko yaa ne ci dëgg sën nawul ci dëgg kii asu rek ñu asu bi lay tudd wala ay ndom ay laa ay ndom ay baatam man loolu kii noonu lay dundee c'est sa vie nañ ko bàyyi noonu. waaw ay jullit yi wax ko affaire baal da nga ni boo ko baalee. dama du ko baal yow naa fekk nga waay yow naa fekk yow naa fekk bon na yow. kii ba naa fekk nga wax xanaa doo julli doo woor ba eh, ma waxati naa naa fekk nga yow. parce que ay jullit bu ñu toogee di jubale ay jaamu yàlla nga ni bu ko baal daa fekk la tax yow. naa fekk la tax xam nga bëgg. nga génn saa ah, xaaral naa ko ni génn saa bi. génn suñu saa bi génn ma saa bi. doo génn suñu saa dox sama saa non suñu saa génn ma génn saa bi non génn ma génn bul ma faral yow bul ma faral baa ma faral sama ma. Ah. génn ma saal bi. nee na génn. sëriñ xol sama ajjana bu dee dafa nekk ci jubóog asuma xam ne du ma fa dugg. suur naa ko adduna suur. asuma ay waay bu yoree ajjana bu ma ci dugg. yorul ajjana yorul àllaaxira waaye jullit nga. ay jullit bu mu amee problème nan ko waxtaanee ci jullit ku ne baal sa morom àdduna bi. naa doon yëfar naa dem safara suur naa as suuf àdduna suur ko àllaaxira. très bien soxlawu ma dara ci moom. ma yow la àndal. laa ilaaha illallaah mu ngi nii de. réglé leen ko rek man lan la ñuy réglé lan la ñuy réglé bu ma la faral wax leen sama. kan moo koy réglé lan la ñuy réglé yow nga am loo réglé réglé woo ko kay wax waxi ñaari góor yi bu ànd ak nag. xoolal kii dafa toll nii ci biir kër gi naan réglé leen ko. da ngeen di xeex dem leen ko xeexuñu de xeexuñu de ñun dañuy xeex ne la ñuy wax dëgg. lu ñu ko génn xam nga ne woo ko génn. xool toogal bul génn. man dama bul génn sax xam nga àllaaxira yow lii di nga ko lay ak yàlla. ba bu àllaaxira yàlla taxaw ñu la ba en kaay toog noo téewoon sa jabar kenn looy la ci léegi yàlla. ma expliqué ko ni ma téye sama jabar. loo koy wax. li ma téye sama danoo xuloo li ma téye sama njaboot rek laa koy expliqué. ndax kenn mënu koo ko. waaw kon baax na. leen wóolu woon sàkk waxtaan ak yow ndax yow da sama nit di sama xarit ma gis ne nag. lii ma gis muy raam di jëm ci ñag bi bu fa amee pax du baax dama dama doon nit koo xam ne du ma jàpp kër gi lu nekk dégg naa ko fi lu ne daj naa ko fi saa bu ma demee ba gedd ba dem ba mooy dem jëli ji ma waxa waxa waxa waxa waxa ba ma ñëw toogaat ci kër gi defuma fi dara yor naa sama kër ba ko ak sama njaboot ñëw di toog ci kër gi waaye pour régler kër gi jàmm am di ci ci kër gi moo tax ma koy def parce que gis naa ne kër gi des na am jàmm kii di sa jabar fii la may fekk ci bunt kër gi ma toog amul lu bon lu mu ma dul yekk amul wax ju ñaaw ju mu ma dul yekk ma boole lépp muñ te dafa war a xam ne jëkkër ju am responsabilité la am jëkkër ju baax waaye foo ko fekk ay jóogin lay sol ak i kap ak i kilot di lëfër lëfër ci dëkk bekki daal di caraxam loolu c'est normal bàjjen bu doo ko gis mukk mukk mukk mukk mukk te tànk yi weexul comme nit koo xamante ni ni amoo toppatoo ah war ngaa xam ne kii kii responsable la ci koñ bi yooyu yëpp ma koy regarder nag mu metti ma loolu ma ne woon naa ci waxtaan ak yow pour nga régler ko teg ko ci yoon wax ko mu changé yëfi dofam yi muy def deful yëfi nit de deful yëfi nit léegi yow loo wax ci lii. mën ngay fenal. eh. dafa am yow mën ngay fenal. ku la fenal. yow da nga xam nga mën a fenal. sa jëf laa la wax. xamal naa leen de li ma jëf lépp man man li ma li ma li ma li ma sumb li ma sumb man mën naa ko fa ba mu set yaa ko yaa ngi dégg man sama waar bopp yaa ma fenal yiy fen yow fi yaa fi fen yiy fen. lu ma fen yow booy génn dërëm ma lay ñuus. première wax bu neex a ngi noonu may ma ma ñëw première wax bu neex a ngi noonu bu may première wax bu neex li may sol nag maa tay ok maa tey lu ma neex laay soo je fais ce que tu veux sama bopp ma sama yar li ma maa ko jënd sama bopp eh te yow génn nga mooy mooy yow naa la yow. dégg booy génn ma lay suut yow. xam nga may wax sax xamadi gars yi. bu yeboo déggu ma. eh eh te eh. Eh. takk fas tasa ko de. yow xam doo ma déglu. sa comportement bu saleté bi yéen tax kii gis ko. c' est pas la première fois nit wax ma lii kii du sama premier jabar ah. nga ne. kii du sama premier jabar euh, dërëm kaay ma expliqué la tuuti ci sama premier jabar Libéria laa demoon takk fa jabar. Mhm. ndaw si blanco lañ ko doon wooyee ndax weex. ah topp ci mbedd di tey tambaambaloo tambaambaloo tambaambalu ba weex tal. Euh, est-ce que du yàllaa la jagleel xeetu jabar yooyu kon. gars yi wax ma ko def. jabar ju xam nga pour lal jëla sa douze set taxaw ba mu dee nga ne ko teel mu dee dañ koy suul ci geer lu deewee kenn duñ ko jëfeen man sama jabar bu weex ma rey la lu leer laa la wax buy weex bu may génn taxawaalu ñëw su ma ci waxee benn ñaar ñettul teel laay def bal mu jeex kii nag du sama aaw daa redoublé deuxième femme la léegi. man bu ma nee deuxième femme képp ko am ku ne xoolal yow ma bu ko kenn mën nga bëgg yow may ma jàmm laa wax. man yow bu ko kenn mën nga bëgg. gis sa yi ngay def ni kii nga koy def mu saf ko man yow xool ci bët yow xam nga ma xam nga ma léegi xoolal dama lay def. dégg kaay bi dama toog kaay bi. dama la toog foofu. explique wax. nga ne waxal ma dégg. eh toog waxal ma yére ma. yow xamoo sax. <laughs> yow yow xamoo sax. expliqué dama ne. <laughs> maa ngi lay déglu waaw ngay def nii xool. kat nga sa dof dof yow sa dof dof li ngay def day day day dañ day dañ. yow pare nga pour mu lay. day dañ par day dañ. oui léegi nga li day dañ te li nga nekk day dañ ah. li ma la man dafa ëpp yaa koy jënd xool dafa ëpp désolé dafa ëpp da ngaa sës waaw man moom dama maar nga naan da nga léegi doo ñaan baat ñu may dama ñaan baat xool lépp loo indi ko mais may ko baat sa yoon newu si yow couple bi yow sa yoon du sa yoon wax nga li nga war a wax jeexul a <laughs> fixé nga la yow dama ñaan baat damay sëy ba dee damay toog sëy ba dee xool di ko defante yow gauche ak droite ndax nag des na gisoo ko dara de yow gisoo ko dara may ma ba ma ñëw. weex ngay basé wu. weex du du weex de. weex gan <laughs> weex. oui man basé wu ma weex. lan ngay basé wu. baax na nañ dem looy basé wu. yow duñ ko xam. gis nga bu la yàlla nattoo ba nga yaakaar ne danga ma ñeme. ba wax ak man wax. ma maa ragalatu ma ragalatu ma la ay ragal yii. ok ok li fi nekk rek moo fi nekk kon merci yow maa ngi ñëw. waaw ah, ah. merci. yow moom fekkat bu rëy nga sa kanam bu léegi. fenkat nga mm. yow man ngay fenal yow la fenal yow eh. xoolal eh. dinaa dinaa la tëggal dinaa la tëggal loo xamante ne yow doo ko ñemee fecc xam nga waxoon naa la benn affaire nga muy la ne woon la toroxal yi may toroxal ci biir kër danaa ko fayu ci nii hmm. wala ma fayu ko ci nii léegi nag moom wax na boppam hmm. jabar yi ma am yëpp ku ci dof dof da lay tiire bal nga dee mu tiire la bal yow léegi nag yow xaaral sa bal xaw ma du set lan lay lan lay dóor hmm. xaw ma mette lan lay dóor nekk rabin mais kër bin man ragaluma. waaw kër bin xajul eh, ci moom du ma ragal yow. ah man xoolal man du ma ragal du ma tàppe te moom xam na ma li muy wax ni fii la koy waxee mais buñ toogee maa moom du ŋaang. mais yéen ay ñaari band yu sëy ngeen wala ñaari band yu sëy lañ waaw lool band day sëy ak band ah ku yiw da ngay sëy ak ku yiw mais band da ngay sëy ak band ba nga xam ne yéen ñaar da nga la sadik man damaa sadik wala déggoo te naa la may ñaari fan non man bu ma dama expliqué dama la may ñaari fan gis nga boo tegee rek sa tànk ci biir kër gi doo ma xàmmee waaw beneen facette laay indi Kelsa raci jam day dikkaat firi rek bàcc day dikkaat yow paakataat laa lay def fii doo toog doo taxaw barki yonent bi maa la gën a wuyu wuyu woo sax moo gën ci yow nag dem toog sa jabar ñu leen ngay lekk paakataat paakataat laa lay dóor jam fii doo toog doo taxaw xamagoo sax li ma la nar a def dee bi ma narati dee bu ñaaw la jëkkër di tëkk jabar di tëkk jabar ji moom métti lay dóor ma du set daa xaj ci nit du set ak yooyu <laughs> ah. Binta mbir mi noo ko defee. laa ilaha sama soow laa jënd jël mbir mi sot seral ko ba mu sedd ko bàyyi ko ba mu jàppanteeg ne la ma yónni ko wooyal ko nag sama taaw. jox lu ne nag njabootu na ko ma ne ko am naa la man yow laa yow bu ma saral soxol xol kuy soxol ah jox ko mu naan astu affaire bi dafa gaaw a gaaw ba ñun daal laata ñuy tëdd mën naa ne effet bi commencé na xam naa ne moom kii moom damay daal lëkkaloo moom dafa moom nii ah kay ndax damaa bëgg nag waa ji lu mu làqar ci jox damaa bëgg moom kenn ŋaan ñëpp moom rek ñu mu joxoon ñu dagg. ñu ne kon affaire bi dafa jàppale. ah waaw waaw ba ñuy jàpp. man damaa ragal ne est-ce que rek def ko rek mu mu jàpp man asu ah, nag man xam nga nag yow man dikku ma yow yaa dem a ma yaa ma wax. xaw ma ci dara en tout cas defal na ma gis na moom kay ki ne moom xam naa ne cëpp a ndax moom fan yëpp sax mi ngi loolu moo ci am solo. a ah, non bi daal jaaxal na ma nag man li tax nag affaire bi jàpp nag jaaxal na ma nag man daal jaaxal na ma nag Binta. as yow nii nan la la mën a jaaxle xanaa nag ba jóg moom yéene woo lii am. Ah, ah, kay man kay ah yow nga bëgg a doxale kay mooy maanaam bëggoo dara am ci lu lu baax am ci yëf yi man kay du loolu man kay man maa la boole nit ki waaye ni mu gaawee ni jooni jooni bii moo ma jaaxal looloo ma jaaxal man xanaa du loolu la ñuy wut ci loolu la ñuy dee sëriñ. damaa ragal dafa tandaasu rek ba ba dal ci nii wala yàlla de waxoon ne rek lii dina am. waaw kon am na. waa léegi kon kon kon xam nga lu ma lay digal nag comme lii xës na baam am kim ne moom bay boo nga waxtaan ak moom. Mm. te waxtaan ak kee di ko waaj a takk. Mm. ndax kee di ko waaj takk ay yëfam réglé wul dafa déréglé dafa bëgg mu mbaay te kim ne fi mu jóge mu mbaay waru ko dañu waxante dëgg. bu bërki dem boo njaay la gaañu takk leen ko takk suuf kenn bañ a yëg nit ñi di ko gis ci kër gi ko wax ñu ne may nañ ko noppi nañ pare nañ ci ngeen bañ a yëngal bañ a def dara ndax loo fi def rek dinañ leen ŋàbb eh ma may jàmm nag assu nag yëf nag am na lu ci bëggu gis nga sama doom ji dama koy xewal ba ñëpp xam ne xewal laa xew ah bu dee na ba pare ay astafurlah yàlla na ko yàlla xare àjjana binta dama ne bakkan yi fi rot ba mu demee léegi kenn mënu koo wàññi. te ah. xanaa bosam bii moo bees bu buur ndax sama doom ëmb na fi ba am juróom-ñeenti weer ñu ñëw def wax ko loo xam ne biiram da cee tuuru. lu ne ma daj ko ci xelam dem xam nga lan la. ah bu wax ko ko woon de. ma ne yëfi kuy dund moom laay def. Ah. waaw damay xewal sama doom ji. bi ñeme nga laa mën a cat ak bët de. yow Binta yow xanaa yow na gis nga Binta nag dama lay wax benn affaire. <laughs> ah déglu ma rek déglu ma rek. Binta Binta Binta dangaa ne ci koñ bi ñëpp xamee lu julleeg jaamu yàlla ak woor xew mi du ci dara. waaye Binta fi mu toll ni li nga bëgg a du sa yëf. mbirum sëriñ daal nga bëgg a jël fi mu toll ni aaki moo ko def ko xarit te Binta gis nga yow comme yaa ngi julli yow lu tax yow jëloo lépp rek wékk ko ci loxo suñu borom di ñaan. man ba tey taxaw ma ci sëriñ de ba tey yaay sa yaa doon samay tànk doon sama ah. làmmiñ doon samay bët. jam nga de. man am defal nii rek ma def laa def ma def. ba tey ten gis ma ma taxaw ci de. xam nga léegi bàyyi lépp ba affaire sëriñ bàyyi ko tegal lépp ci suuf. may loolu kenn waxatu ko bàyyi moom mënta ne kii kay moom nii rek lay daal di. defal ma day foncé. Eh, laa li ma bëgg sama doom ji il faut mu defal ma ko ci. asu nag gis nga euh, euh, maanaam xol la ca ne muy lu rafet borom mënu koo nëbb muy leneen borom mënu koo nëbb gis nga yow foo visage nga ma jox. man kay damay bañ sa xaalis yàqu ci medd mi rek looloo tax may wax rek ak xew mi nga bëgg a dënmal àddina ŋàbb la binta dawal coow binta dawal bët ak lamiñ te ñeme nga de ñeme nga de wóoy <laughs> ndeke daal bañ weex na waaye deret ko lan maa ngay dem waaw nuyul ma sa waa kër asu waaye li nga bëgg duma la ko may sama doom bi dama koy xewal ba nga xamee nag da ngay ci mbir yi ba mu neex la nga wàññeeku waroo ci woon a dugg yéen seen waa kër ay kàkkatar ngeen rek du ngeen changé mu ko waaye man ngeen fi fekk gis nga xale bi lii am am na ba pare sëy bi dina am par force te dinaa xew lii rek laa bëgg ngeen xam. soppeeku gaaw na di ni yàlla ni tey ñoo ne def sa robe bu molante reesu de maquillage affiché sa sourire ci àdduna changement moo gaaw. yaa loolu mën na neen. de te ndax man dama bëggoon a xam bi changement bu brusque lu ko indi ki ne yow fekkuma la sa kër yaay keroog di waxtaan ak yow nga ne ma yaay bu tëddee nelawal xaw ma sëyal waaye masaar mi seexlu naa man toogu ma kenn di ma donnante ba sa yaay taxaw di ma gaaruwaale man ba ñu mën nga sëy waaye ki nañ ko bëgg defee ñaaw na de kon fi mu ne fàtte nga buum yi déjà ah fàtte nga koy gaañ. Ah, dana jaxasoo na ba pare te doomu buum na ma nga ne may naa yaay waaye xam nga dafa def kilifa dafa am dafa am pouvoir ci doom sama yaay nag ndeysaan ba muy metti moom la woon moo ma ëmb moo ma wasin moo ma nàmpal am na yoo xam ne ma ko toppee dima ko ñaan ko ñaan man xam naa duma dugal ci lu bon loolu kese la naa ko nangul sama kilifa la ki ne ki yow la awaa man la ne ki ki ne ki yow a xiinu fajar ci lëndëm kinde yow ni nga meloon ci buur xaru fii lu ne nga def ko fi man mii ma jël la def la sama nafsu dem ba jëndee la ak Amina mii nga xam ne ma bàyyi mu bokk ndey ak bàyyi ba lu ne ma dégg koo ci ba bàyyam dogoog man ba moom moom mu taxaw yàq ma lu ne ndax yow mi sama kam yamalewu ma laa kenn ci àddina te yaa ma mën a def nii. Ah, man yaay duma duma duma yaay man duma miiru bis nit laa daa am lu ma war a dundal te na xale bu ndaw laa demaguma fenn lan nga bëgg ma toog di misère ba kañ bu tey su ma deewoon leer na ma du ci teg at ay ñetti ñetti jabar la yoroon de bu ko fàtte de su ma deewoon soit day remplacer daf may remplacer wala mu egg ñaari sëyam yee sans problème mais man muñ naa li ma war a muñ fàttewu ma ko lan bëgg ma toog ba kañ ah, ah yaay na loolu néew ma du waaye ni ko bëgg a defee ñaaw rakk bu ji xanaa sa yaram du daw di bësee moom. sama yaram daw te ah, pourtant benn la de deret benn fekkoon sax yow yaay xale bi dalay déranger doo ñëw toog ci këram nag xale bi moom moom kër gi di lu dëgg te nag yow mii nii di mag comme que yaa mën a xëccoo ay ay di ci xuloo di ci histoire boobu léegi yaa ngi toog muy métti asamaa man gone gi nag te man a sama yaay wax dëgg yàlla moo ma ko digal du question man maa ko bëgg de bugguma ko sax nag mais sama yaay moom mënu koo bañal dara noonu la xam nga rek au monde il y a toujours yoo xam ne maa ko bëgguloon a sax seetlu mënuma ko woon gëm gis nga keroog ba ma egsi seen kër seen la posteeru bu bi nga xam ne ba mu sànni tël foo toll seen ko ngeen wekk ko dindi. fa wadd xam nga posteer bu moo diis posteer bi xam naa ñëw jël poids am gën a diis affaire bi wadd toj ma bañ nag tojit yooyu gaañ xale bi comme que day raam ma ne naa ko denc rek après naa ko defar loolu la rek dina leen. yaay jàmm dugg dugg dugg. waaye nag damaa xas ba am sët ca kër ga sama deret jaxasoo waaye yow de xam nga ni banaa la àdduna balaa àllaxira yow de foo aw ëllëg bëgguma fa sax aw ci àdduna. doo lekk doo naan doo air soo ma bàyyi ba njëriñ la ma amal. oui d'accord sax. waa kii rek yàlla sën gëmal yàlla te bàyyi xale bii ngay jàpp ko waas kii lii dawul kooram gis nga kii ex gorom dong nga. ndeyam jee gis nga bopp jege na sikkim jege na baat waaye sikkima raw kii mënoo doon lu ndayam jee doonul ci moom goroom nga te gor ndeyam li mu ko wax loolu lay def yow lan la kii day séeg masaar loolu mënoo ci dara baal xale bi ngay jël chaque jour di ko waas di ko di ah, doon arabisant naan danga koy waar mayel kii jàmm bu ko fat baa waxu la fi lu déplace ah, ah moom daal affaire deret lay wax te man kii ne daf may lonk buum rek man man man problème la am. mais ay lonk buum sax amu si da ngay sëy normal xale nga dañ cee tool lu mu bëgg léegi. nee naa toog di xalaat bu daal. pour la xalaat monsieur waaye yow mi da toog di monsieur te ya yow jamono c'est pas la peine nga nga juddu kii xale bi ka 2000 ah, la am na droit bu jëkkëram wàññee ko yàllaa ko dogal nag te yàlla dogal jaam mënu ci dara yàllaa ni woon dina njëkk a jaar ci bu bu ci liggéey mu dem ci masaar lan la. mayal ki jàmm waaye yow sën lan la. moom sax du ma yaaral di sàq daa moo ko bëgg bu yëkkati raqam yëkkati. waaw yëkkati waaw léegi mënoo koo échappé. bu yëkkati bu ndaw la moo tax ñoom ñaar sëy bu la ñu sëy léegi nag masaar ku la ne yàlla du du ko bi rek sama doom ak kii Massar mii benn deret xam nga moo koy ëpp yërmande que su ma demoon ci beneen góor mu koy maltraité doomu jiit la la koy jàppee te kii doom la koy jàppee dëggantaan sën nag nag delloo sa xel si yàlla dañu raamal lii nag xam nga yow dëkk ba nga tas dara ca gën a yow yaay représentant Iblis sur terre xanaa yaa adjoint bi yaa ngaa jël lépp di kenn amu yow yaa jël lépp yaa man maa la ma def maa fale di mënu maa doon sa adjoint ndax yow yaa raafale mi lépp toog waaye rek sa fumiste ak sa rambaaj ak sa fipa yaag baawayam ki se ressemble sa semble relation d'intérêt rek bu ngeen yaakaaru woon ci masaal mi dara du ngeen topp ci kii dama a sama maro waaye loolu neexut de yow mu toll nii daal yow sa doom daa nga bëggoon muy muy dund rek di buuma ko buum bi mënoo ci dara bu ñu waxee nga xulli ku mel ne xar mu ñu tay la gaynde dafoo dina jàpp la mayel kii jàmm day sëy mënoo ci dërëm may ko jàmm fii lay ñëw ci kër gi di ko firi di buum di buum bi jëkkëram a moom kër gi non non xam ah, ne dara bi rek lañ ma wéy. de li li fa xewee sa de yëpp maa doog ci buntu bi kenn moo lay xool defal lu la saf. sëyër mbañ ngaam ya day mel ni karbati baana baana bët ya mel ni kambi ji naax. kambi ji naax ngaram mbañ nga. fa nga tax sax dara ci gën a tuuti man waxuma sa yére kambi ji naax <laughs> bu ko faale eh, eh gis nga ko de day jéegu ba tey de fi toll nii mu bëgg laa xañ nag sa jàmm bu ko nangu. yow kii ki de moo ñaale fëgg dëngam nax ay yow maire bi. pour moom moom dong war a. pour waaye di nga zonze ba mu neex du ko nga masaal nga ca kaw. waaw ni nga def baax na génne nga lépp nii laa la ko waxee dee ko defee nii dima solol yu baax yu tojotoo xale nga juddoo góor bu la kenn damm bàyyi laa sa tabax ngay jaabante hôpital dégg nga ma. nii nga ko defee noonu day gën a fomb sa poudre ak rouge à lèvres rouge bi. dama koy lekk. waaye looy lekk ci rouge à nag. su ma defee rouge koy gën a bàyyi mu mate sa gémmiñ gi mu gën a toog loolu laa bëgg defal ba mu baax. ki ne njëkk laa bëgg nga effacé ko dindi loolu indi ki ne bu normal. kon dañ naa loolu dee deewu njëkk a waaye ku dee sa karaw ruus yàllaa tuddoon mu dee loolu su ma jugoon dem. tay fin ngay sëyal léegi jugee nga ci goro kii yi. waaw ak a boo leen gisee ma woote jotaay bi hmm. du jotaay bu yàgg jotaay bu jàmm ak salaam alhamdulilah hmm. waaye xam nga sama sama doomu ndey ji hmm. dew ma fenn dikk di ko nettali fu ma jëm moom laa àndal beneen bi ci topp mu man ma xarit lool ndax waykat wa dañ li ci xarit mooy euh, boo wootee moom ngay njëkk seen loo nekk bu dee safaan ak bànneex moom ngay njëkk seen te moom noonu la mel ci man Euh, loolu waral ma woo ko ci jotaay bi. Mhm. Euh, beneen bi ci topp xam naa ni euh, sama baay bii. Mhm. daf ma yéene lu baax. te dañ ni góor mun tamat fekk dencul soxna. Mhm. mi ngi noonu loolu nag mag ni ñoo ko wax te sama baay daf maa yéene lu baax loolu waral segam nag dama bokk ci ñaari askan yu rëy lu may dugg nag naa ci wut ay seede loolu waral sama baay bii sekk. defe naa xam nga lépp. daf ma yéene soxna muy sox euh, soxna Fatou Kindi mhm. mu yéene ma ko mhm. loolu waral nag ma sàkk jotaay bii rek ngir jotaay boo xam ne rek jotaayu jëf la nga xam ne buñ ci jugee la mhm. ci leneen la ñuy nekkat insha allah loolu waral ma woote woon doon leen taataanaat waaw ndax fi mu ne nii ñu ngi ci dernier virage bi te dernier virage moom rek attaqué moo ci topp waaw mbir mi moom liñ ci li ma lay dolliwaat rek mooy <clears throat> nit duñ la may lépp nga jël lépp euh, takk gi baax na niñ ko ñaanoon sunu borom mi ngi ciy def di gëm naan dina sotti waaye dafa am lu ma bëgg ñu sóor ko mooy xew moom moom nañ ko teg ne bu xew am nañu def farate ji rek ndax xam nga ni bu bi demee yàggul te dañuy ŋàbb nit day moytu luñ ko ŋàbbee waaw bi mu demee yàggul ma bëggoon bu ñu def nañ def farate ji rek ba ca kanam nag lu neex waay def man loolu loolu daal laa laa bëgg waaw nag bu rëy ci dëj bu rëy lay faatoo ma Massar waaw xew mënut a ñàkk xaar ma ñëw rek xaar te wax waxatee ak man del teggi sa tànk président des <laughs> futur président des communicateur bu Thiès ngay wax nangul naa la tànk yi dee koy faral di diw mhm. euh, góor gi mhm. euh, dafa euh, dafa am loo xam ni foog nu waxtaanee ko mhm. li naan nañ ko waxtaanee te nañ ko def goo mës a gis nañ ko waxtaanee ko jiitu te man yàlla daa dogal ñàkkuma jom néewu ma gàcc sama néegu yaay dundool beneen bi ci topp mooy man yàlla moo dogal euh, kilifa yi dañ maa jox bopp te man duma def lu ndaw du ma dugg ci lu ndaw bu ma ko naree naa ko ba te man mënumaa xew lu ndaw ndax maa ngi doo a takk soxna beneen bi ci topp it sama bàyyi naago mu baax ma euh, dana ma bis booy xew na ko réew mi yëg mun nag nun nag euh, man métis laa loolu wala géwél damaa bëgg mu bëgg géer yi bëgg kon nag bàyyi nanga xam ne daal lii sama mbir bopp la man foog ma xew en sec ah! maa wax sànq nga fe ma ci ma kay. waaw ñëw bàyyi kon nga waxal sama bopp rek da nga may may ma do ah, kay kàndang da caa baax waaw jërëjëf kan ah, xew mënut a ñàkk ah. xew mënut a ñàkk ndax kii moo tol moom hmm. nit nag amul lu bisam te yàlla dogal mu bokk ci ñaari askan yu rëy hmm. ah hmm. lacciri ba seen ma ay satal at bokkar laccir wax dëgg yàlla wallaahi ndeysaan wëlbatikuwaat bokk ci famille alaaji naa ko sàmm waaw papa nag kooku di nga am bis bu toll noonu nag di ko di ko maf ñaan dëgg la da koy biral ba ca kaw xew mënut a ñàkk ah may ko def takku takku jàkka yow ku sa yow yaa ñàkkal bu am na yoo bu ci wax sax war cee war nga koo femm barki démb la boo dee ñoolu ba ko fi fi làng def ay baas di sabaru di fi musique di woo ay waykat di woo ay fecckat bon c'est bu doon yow doo ko ma ñëw eh, mayoo ma ñëw bu doon yow doo ko def ah. yow nag ku ñàkk kilifa xam nga da nga ñàkk kilifa ba jën mën ngay wax waaw da ngaa ñàkk kilifa déglu rek eh. xam nga da bi di wax yenn kàddu bi maa ko dox maa ko wax da ngay déglu da ngaa fekk mu jeex nga topp te ñiy taatu ba ah, xale bi maa ko dox maa ko wax xam lu ma bëgg bëgg nag bu rusul day toj yémal leen xew mii bu leen fi ne di baas def leen takku jàkka mu jeex tàkk ku ne dem ñibbi ba beneen yoon nag ngeen def lu leen neex mukk léegi nag bàjjen damaa bëgg nga xam lu leer damaa bëgg nag ko Euh, bàjjen kaddu gu mujj gi man ci man lay abi beneen bi ci topp it man sama sama wax sama waaw waawaaw lay àndal dama bëgg ma neetee waaw nga ni waaw muy waawaaw rek moom laa bëgg mu doon euh, xew bi incha allah dañ koy xew dañ doon waxtaan léegi bàjjen ma bëggoon ñun mag ñi nañu def li ñu war rek nan def suñu farata bàyyi leen ñoom xew mi ñoom ñoom moom seen xew yow war nga fee xaar ñu fi wata ay xew yow déedéet ñoom ñoom moom seen xew ñun takk nañu def li mag di def rek ñun takk bàyyi leen ñoom ñu xew seen xew waaye yow yow war ngaa taxaw ñuy baas fii ci mbedd di fi def ay xew di tëgg ak a fecc waaye nee na am na loo xam ne tamit il faut na mu ñu ngi dund nañ leen ñaanal ak ñun ñuy dund ñun ñuy dund nañ leen ñaanal ñoom ñoom moom seen xew nañ leen bàyyi ñu xew esaan ñun décidé ko ñoom ñoo ko décidé ba yow gaaw gaaw lépp dañ ko teg ci ordre waaw de ñun dañ doon toll la ñuy defee man imposé wu ma de dama doon ñaan. ñoom nee nañ loolu mënuñu koo maye danoy xew nañ leen bàyyi mu war a ndaw tam. waaw kenn naa xam nu mu toll. sama famille bàyyi naa ko sàmm ñëw. ah da nga demee ci faram yi ci ndeer. sa géer ñu baax bu ko defee sama famille bàyyi ñëw. waaw ah xam nga loolu day ruuj puuj ah. ah. waaw waaw voilà eh, bu ko defee noonu dem te nekk ci moom mi laa dénk xew. Mm, incha allah mbaa mbaa fàttewu Alaaji Ousmane Sarr. Eh, ma ko. kooku kooku eh, kooku baayam bu baax ba. waaw dégg na Cheikh. Mm-hmm. dégg na chef de canton. Ah. waaye ki jur baayam. waaw euh, euh, la woon. jë jeex na. maam Cheikh Anta ko seexal borom dërëm ngëm bi mu bi mu màggee baax. waaw al amin la gëm. sëñ Babacar si la bàyyam tudd ba rek dara man. bàyyi lu ci des ba bis boobu waaw nan dem nan dem. waaw laaj na. yow kilifa ko bon nga ku ñàkk fayda. waaye yow moom seen xew nag. yow eh, eh, xanaa da ngaa sa bopp yow bi ñu lay takk fii faafaar bi taxawuñ nga sor rob bu mel ni gone judduwaat. waxal loolu loolu ah day defal naa. loolu loolu daan naa fekkee mais dara boobu sama tante ba mu gaañoo yàggul te da ngaa xew fanfar bi yëpp taxaw. waxal àdduna dina leen ah, wax de sa jëkkër ji mel ni jinne ah ah di jaagar jaagar lu ne mu dugg ci waxal. Ah, mi ngi noonu encore ah, nag bàyyi xale yi ñu raw. am na dina leen mbaam bu jërëjëf. réception nga nag waaw waaw amul problème. réception bàyyi xale yi ñu réception.